bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.com. sénégal7.net. kaddu gi diado fii ci studio Alioune Momar Lo waxtum xabaar yi jot na sënkam bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li ci gën a fës nag bokk na ca rek ni ki tey jii li nga xamee ne moo di wàllum paj meek paju bi nag dina sooxe ci mim réew ci jamono joo xamee ne ñi di waa ànd gësam ñoom ña ngay grève syndicat autonome des médecins pharmaciens chirurgiens dentistes du Sénégal ñoom itamit nag daal dinañuy woote rek la ñu tuddee journée sans blouse yemboo gi tam ña nga xamee ne ñoo di de chrétien la ñu tuddee journée maternité sans sage femme ñoom nag la leen métti rek nee ñu daal la ñu leen di joxoñ baaraamu tuuma la boole koog ni itam nag jëwrin ba leen jaboote di Abdoulaye Diouf Sarr daf leen seetaan ba noppi itam di leen jaxaseeg askan wi ci waxtu woo xamee ne kii di Ibrahima Vie Diagne di ab technicien supérieur de santé moom nag la mu gis mooy ne rek waa kër docteur yooyee ñoo war a xoolaat seen ak toogaay lu ni mel daañu ko yaatal ci biir xibaar yi gannaaw lu ëpp ñaar fukki at yoo xamee ne nag ne mi ngi amoon rek ay jafe-jafe ngir mën a doxi ay soxlaam te loolee nag dara lu ko lu dul ab l'accident bu mu amoon nag rebelle yi moom mi nga xamee ni moo di ah, Mamadou Diop nag jot na rek ab moto boo xamee ne dina mën a yombal wàllum demam ak dikkam lu ni mel nag di ab ndimbal loo xamee ne mi ngi tukkee ko ci Serigne Mamadou Soxna mi nga xamee ne moo jiite coopérative des ferrailleurs de Kaolack loolee itam daañu ko yaatal ci biir xibaar yi chambre criminelle bu tribunal grande instance bu kaw Kaolack bi moom itamit nag daal dina ibbi rek ay buntoom niki talaata bi génn euh, ca audience ba ñu doon amal nag atte nañu fa ay mbir yu doy waar bari te wuute loolee tamit daañu ca dégg Cheikh Babacar euh, Dieng reportage yu euh, bés bi nag tey jii mi ngi soxal rek conférence yu bari yi ñuy faral di gis ci jamonoy koor gi conférence yooyee nag ak la ci askan wi di faral di wax moom borom xam-xam bii di Cheikh Taha Assane Deme daal dina koy jàngat ci reportage yu Alioune Badara Diop bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram yóbbu lu koor Euh, toftal ca kooku Gaye ak Bara Diop jeexale ko li ci yéene kaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi des gis ñu yàttal. Le journal Ngoné ci euh, kaddu gi euh, fego ceek koddu sek euh, madame Keneme ci wàllum xarale gi mbokk yi dalee nag jàmm ci bile jotaayu xibaar dañu koy doore nag ak jafe-jafe bi nga xamee ni am na tey ji ci wàllu wér-gu-yaram gi ak na ma leen ko junjee jamono ji mayaddoo ngeen di teewlu jàpp leen ni itam ne ndawal Alfayda mi ngi rek fa nga xamee ni moo di ca barabu fajoo kaay ngir itam daal di xool rek situation baag na mu demee Cheikh Ababacar Dieng. Ah, maa ngi lay maa ngi la fay lu ñu mën a euh, jàpp ci euh, tey jii nag ci wàllum paj meek paju mi jamono ji. alors euh, jàppal mbubb bi tubaab bi di wax naan situation bu catastrophique. catastrophe mooy li ñu nemmeeku mooy mbir mu doy waar. bu ñu ko njëkkee ci poste de santé bi njëkk di ci Medina Baye foofu moom dañu ko sax far tëj porte centrale bi dañ koo ferme pour nag wax la ne waxaale wu ma bureau yi. loolu tamit moom Kansa. la romb sànq ci fi nga xam ne moom moo di Jalañ jamono ji ñu ngi ci hôpital régional bi ñu defee Alaaji Ibrahima Niass baay fii tamit lépp lépp lépp a soxe ci maternité bi la ñu nekkee ñu ngi sax exactement ci mbaar bi nga xam ne ñu gunge malade yi ñoom fii la ñuy la ñuy la la ñuy la ñuy dalloo eh, di nekk mais situation bi ñëpp ñëpp ñëpp la la yéem ndax tey mooy bés bi nga xam ne nit ñu dinañu judd te sage-femme du am mu yokk ci tamit tey mooy bés bi nga xam ne syndicat autonome des médecins du Sénégal di SAMES tey la seen bisu grève waaye moo di deuxième jour grève bu waa ànd gësëm situation bi doy waar loolu ci hôpital régional bi nga xam ne jamono ji nit yu bëree bëri bëri ñu ngi koy wutal si seeni i euh, jaaxle yenn yenn rek ci ay bulus balaa ngay gis mooy ñi nga xam ne ñoom euh, jàpp nañu ne ñooy ger urgence bi bu nit ñëwee ñu leeral ne bu ñuy dugg ci ay mbiram mën naa euh, jur guuta ñëw ñu intervenir waaye bu dul loolu tey jàppal ne journée cent sage-femme mu ngi dox bu baax ci Kaolack ñetti poste yu ñu jot a gis lépp la ñu tëj hôpital régional bi tamit benn benn ci ay nit ngay gis ñoo xam ne danga jàpp ne ñii ay ay ay fajkat lañ loolu moo tax bu may tàmbalee ma ne la situation bu catastrophique moo di li ñu nemmeeku. Euh, Cheikh Babacar. waaw Seyda ñu fàttali que ne lii lépp nag li ko waral rek mooy li nga xamee ni moo xewoon ca diwaanu Louga. waaw bokk na ci. mais mais boo xoolee. Hmm. dafa am na foo na wuute bu yi nga xam ne ñoom suba la. ñoom seen xeexu seen xeexu bopp la ànd que tamit seen 72 heures yi jiitu na euh, situation Louga bi après ñoom dañ ko cee yokku léegi nag transport bi nag ñoom ñoo yor uniquement xeex bi nga xam ne mooy situation ba am su Louga di seen ñeenti tàngoo yi nga xam ne dañu def a dépôt. Mm-hmm. Euh, gannaaw kii na àdduna ki nga xam ne nii moom moo di euh, soxna jamono ji nag mm. euh, jàppal ne mbir mu mu doy waar la la la ci kaw askan wi. Mm. ndax xamuñu bu ñu ko waxee te bare ngoone may ba may fàttaliku ba léegi maa ngi soog a dégg journée sans sage-femme. loolu moom moom nga mel ni ñu bëggoon a décréter journée sans Facebook. wala mm, dana dana métti ci ñu bare bare bare jamono ji daal situation moom la ñu nemmee ko xanaa di ñaande kilifa yi woote waxtaan am yëri fi réglé balaa muy def ay waxtu. ndax journée sans sage-femme moom euh, mënta yàgg.

laal foofee sax la ñuy teg suñu baaraam daal di wéy ci xibaar yaa ak lu ñu leen junjoon Ibrahima Vieux Diagne nag di ab technicien supérieur ci wàllu wér gi yaram gi moom nag ma ngay jàngat rek jafe-jafe yi nga xamee ne am na ci l'hôpital yi la mu nangu nag mooy ne jafe-jafe dëgg am na tey it nag ñi nga xamee ne ñoo di personnel de santé bi am nañ ci wàll maanaam part de responsabilité ay kàddoom noa bi yaay moo ko taataan. en fait loolu la Sénégalais yi gis xëy na loolu moom moo am même amu doon su ko yi gisee rek dëgg la alors loolu la ñu gis ñi dañu am ay jafe-jafe ci hôpitaux yi te du hôpitaux yi rek béréb bu fajukaay yi Sénégal yi bañu ñoo faju parce que clinique yaa ngi fees mais Sénégal yi suñ demee hôpitaux suñ demee ci service public yi dañu am problème mais problème boobu nag nañu xalaat ne problème boo xam ne ay niveau yu bëri la dafa am problème niveau structure bi am problème niveau personnel bi am problème niveau état bi ku nekk nag nañ seet lan mooy sa personne responsable mais ñun ñi nga xam ne dañ nekk ay fajkat suñu responsabilité nañ ko jël nañu xam ne si ay nit la ñuy faj joor ñuy soog a wax ñu wax ni lii mën nañ cee liggéey lii mënuñ cee liggéey lii mën nañ cee débrouiller mais jusqu'à quel temps c'est vrai que nekkuñu un pays développé pays sous-développé lañ nekk mais lii ñu dal di dal tey waa luga sa veut dire juste que ñoom dañu nangu woon liggéey ci yenn situation yi mais loolu yëpp nag suñ ko waxee aussi ñun ñi nekk personnel de santé nañu defaraat toogaay ji nit ñi gis ñu ci lu baax xam ci lu baax ñuy dimbale nit ñi parce que liggéey lañu ci nit la liggéey nit ku nekk tey ci Sénégal mën na la nettalil benn problème bu mu am ba mu nekkee xale ba mu nekkee mag ak qu'est-ce qui fait hôpital soo fa demee obligatoirement il faut nga présenté est-ce que da ngay présenté wu bu ñu toppatoo la c'est pas normal hôpital ñëpp a si yem man de li ma mën a xam te loolu laa wax léegi ñun ñiy faj nañ defaraat toogaay bi te ñun ñiy faj aussi bu ñu toogate ba yëf këtt na joon ñuy soog a wax man mën naa liggéey ci condition yii ndimbal la ma wax suma chef ne ma condition lii lii ak lii ak ne eh, jot na tey jii nag ñu daal di xoolaat rek li nga xamee ne moo di système de santé bi eh, joyanti ko ndaxte nag la nga xamee ne moo xew ca Louga neexu leen eh, te it nag lu ni mel mën nay gàkkal rek deru ñi nga xamee ne ñoo yëngatu ci wàllum paj meek paju mi nee na itam nag laaj na ñu tey ci dossier bu ni mel ay kàddoom ba tey mu ngi ci noib yaay wax naa la ko de di xew Louga day wax dëgg yàlla neexul kenn mais day fu muy yóbbu santé peut-être kenn xamu loolu tax damay ñaan ñëpp na ñëpp dal ab def introspection seetaat suñu bopp muy syndicat yi muy partenaires sociaux yi muy état ñu toog seet lan mooy santé parce que nag nañu waxante dëgg tey suñu seetee opito yu bëri personnel administratif bee ëpp personnel kaa Louga day dama ko naqar waa Louga ay xarit laa fa waa Louga ay mbokk laa fa ëpp je connais ñu buggul liggéey xëy na rek kañ lii dafa doon ndog boo xam ne dal na leen mais de ku xam Louga ku xam saxi mbay xam ne ay travailleurs ñoo fa nekk malheureusement nag lii problème mooy li ma waxoon léegi rek directeurs yi de ñoom presque ñoom lu ci xew rek yóbbu leen c'est normal aussi parce que loolu la tubaab di wax la responsabilité du fait lu xew ñoom la mais nañu gëm aussi ne fi mu ne nii nag def ko nag participative c'est-à-dire ñëpp bokk ci ñu seet lan mooy solution mais plus particulièrement ñun personnel de santé ñun personnel de santé bi nañ defar suñu toogaay léegi nguur bi aussi na jël ay responsabilités par rapport aux structures et responsabilité nguur par rapport aux structures mooy li tubaab di wax norme lan mooy salle d'accouchement lan mooy salle de pansement lan mooy bloc chirurgical ba nga xam ne problème bu amati wax dëgg yàlla ñun suñu toppee ñu nangu hôpitaux yi nañu dawal yërmande nit yi Sénégalais yi ñoo ñëw hôpital ku ñëw hôpital sa ñàkk pexe la am na ñoo xam ne sax bëggatuñoo dem hôpital parce que lañ fay daj dayam bi même personnel bi su demee hôpital su yéexee présenté wu gis lu ko naxari mais nañu nangu cette réforme hospitalière réforme de 1998 ñu xoolaat. wàllu wér gi yaram gi ak Ibrahima Vier jaañ ma doon sàkku rek ak ak joyanti ci jamono jooju nak jàppale ni itam ne ni ki démb rek ca conseil des ministre ba ñu doon amal moom nag njiitu réew mi daal dinay sàkku rek ci jëwrin gi yore ma paj meek paju mi di Abdoulaye juf saara ngir itam mu daal di koy defal la ñu tuddee ab audit mu soxal itam structure sanitaire yi waaye tamit rek daal di càmbar lépp luy jafe boo xamee ne mi ngi aju rek ci wàllum wér gi yaram gi ba nga xamee ne daañ ca mën a indi saafara du jomb daañ ci dikkaat ci beneen jotaayu xibaar yem boo ko juróom-ñeenti waxtu a jot ba tegal fukki simili ak benn ñu daal di wéy nag ba tey rek ci xibaar yi daal di wax itam ci leneen lu ñu leen junjoon gannaaw nag ab l'accident bu mettee métti rek bu mu dund ci atam 2001 ba jamono jilee nga xamee ne sax gàllankoor na ko lu bare bari niki fan yi ñu génn nag jot na rek lañu tuddee ab ndimbal ndimbal loolee nag mi ngi dina mën a yombal wàllum demam ak dikkam moom nag Momad Diop daal di nay nettali mbir yaak na mu ko dalee waaye itam daal di wane mbégteem ca boobu leen ndimbal ay kàddoom mi ngi ci micro bi yaay. lii laa toog benn jour mu amoon téléphone. ne ma ñun de dañ laa soxlaa ci terrain bi. mu proposé ma ndax a. mu ne ma baax na maa ngi dox. bi ma ko waxee ak bi ma dippi taxee. ma dul 20 jours kon loolu mbetteel la xam nga. bi ñu ko jëndee tamit lépp lu mu def lépp liggéey rek laajuma accident bii nii du feebar du jabet ma dama amoon accident Casamance agré rebelle le 16 février 2001 13 mois rescapé ma ma ne rescapé ñu jàmma bal ci tànk jàmma bal ma ñaari yoon ma tëddi si ngeen so 9 mois ma si ngeen sor ñëw si Aswad te Aswad benn fii

jëf ji ndimbal leeg na mu ko utee waaye itam nag ka mu ko na mooy kan Serigne Momata Soxna njiitalu coopérative bi takkee ferrailleur yi ci Kaolack mi ngi ci micro Noa Biaye bésab jàmm la ak bésab contentement parce que kii di sama mag nekk sin grand frère mu nekkoon copseur si garage les gros nga xam ne képp ku am ferraille fii si Kaolack moom ngay woo ne ko soxla naa camion pour nga mën a charger ferraille yóbbu ko si ñaari industrie a dem liggéey ñun ko seetloo sax feeñ na si ñun parce que lu mu guddi guddi soo ko waan rek oto rek mu lijjantul ko rapidement nga am sa oto charger sa ferraille yóbbu ko si ñaari industrie mi Fabri Metal ak Someta te su la charger rek oto bi su demee sax du la may ba

njabootam parce que liggéeykat la ñu wax ma nuñ ko bëggee yëpp ma wax leen ko mooy moto bi ko mu waxtaan ceeg tamit moom directeur Fabri Métal mi Mounir Kébër ñu nangul ma loolu acceptel ma ko ñu ne ma nag nañ ci def don pour Fabri Métal ñu def ci ni don pour Fabri Métal ñu ñëw indi ak Mame Soxna ñu ñëw indil ko li nga xam ne mooy moto bi ah. man moom personnellement suma mag la fii 12 mois yëpp man Serigne Momar Soxna essence bu may jëlee fii ci këram moom nag njiital ferrailleur yi itam daal dinay porox ndoolu rek ca boobule jotaay ngir itam daal di def rek la ñu tuddee yettaale boobaale ndaxte itam daal dinay waxaale bépp jafe-jafe boo ba tax na sax ma nga cay tàllal loxo état bu Sénégal kaddu ya xam ne bonus la bu dem si askan wi kon ko yégal Sénégal ñu xam ne secteur ferraille am na solo SOMETA tamit weeru dee dana génne prix de quinze millions génnee ko joxe ferraille loolu trente cinq millions la par mois mois soo ko calculer ay plus de 350 millions la yoo xam ne mi ngi dem ci askan wi kon ki nga xam ne mooy président Macky na xam ne ak nguur gi xam ne secteur ferraille am na solo ñu ngi employé ay nit di jël ay bonus di ko jox ay nit di ko jox ferrailleurs yi muy dem ci askan secteur la boo xam ne mu ngi indi développement ci Sénégal kenn jëndee ne ñu ngi bi tamit su fekkee dafa togg fer mënu ko jaay erreur la ginnaaw nag usine bi bi muy faire importer bi suñ ko mënee wàññi dañ ko wàññi usine bi tamit mën a liggéey liggéey bu am solo parce que usine bi su doxee ñu dox su taxawee ñu ko may suñ ferraille mën na dem ba bougé loolu maa ngi ci lancé appel état bi ñu jàpp si xam nga ferraille bi fi ne léegi dafa bëri ay groupe xëccoo bi bëri na te man nekkuma di politique ci ferraille je un responsable politique jiite mouvement bu tudd GMDS waaye ñi nga xam ne demoon nañ ci ministre boobaa fukki région yeeg ñeent yi suñu amee section ba pare nag section yooyu ñooy dajee taxawal fédération waaye ñoom waa Dakar yi quelques nit yu nekk Dakar amuñ pàkk te duñ livré sa feeraay ña fa daje woon ñoom ñëpp man lu ma livré man ci mois bi man ña fa daje woon ñoom ñëpp maa leen ëpp sa poids man secteur lu koy doxal mooy kii dundal secteur ba parce que usine bi su sampee ci réew mi te amul feeraay usine ba day taxaw ña fa daje woon ñoom ñëpp ngeen ñuy eh, toppandi ba tey ci eh, juróom-ñeent fukk yu eh, tombal benn daal di àddu rek jëmee itam ci lu soxal wàllum mbéy mi gannaaw nag lépp juróom-benn weer yoo xamee ne ña nga ko doon doxal campagne yu njënd meek njaayum gerte gi nag daal di nay tëj ay buntoom ñi nga xamee ne nag nañu di l' opérateur économique yi ñoom nag càmbaar nañu ko xayma boobule campagne gis ne itam bari woon na ay sooxe sooxe Cheikh Tidiane Diagne. ñaar fukki fan ak juróom ci weeru ko novembre la ko tàmbali woon fii ci réewum Sénégal mu jeex fukki fan ak bi ñu génn ci weer wi ñu nekk campagne bi soxal la njënd ak njaayum gerte gi nag jamono ji tembe tembe at mile liñ ci mën a jàpp ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di opérateur économique yi di wax ne baaxul la lu ñu mel ñu ngi ko tekk ci ay chiffres yoo xamante ne xayma nañu ko ci li nga xamante ne moom moo di njënd ak njaayum gerte gi El Hadji bu gumba la opérateur économique la moo jiite FENEPSUTE boo xoolee industrie liñ commercialisé lépp ça tourne aux alentours de cent soixante deux mille tonnes di wax yi déclaré lu tolloog cent dix huit mille tonnes li nga xam ne si ne moom lañ denc ci wàllu jiwu nañu naan certifié ak li nga xam ne moom la ñuy wax écrémé mu ngi nekk à peu près cent quatorze mille tonnes li nga xam ne si ne moom la ñu war a consommer local maanaam li ñuy tigga dégeek li ñuy caaf ak yenn yi ñuy lekk ak loolu mu ngi tourné aux alentours de deux cent cinquante mille ton te ministre bi ne woon na am nañ un million six cent mille tonnes donc loolu boo ko xaymaa boole ko à peu près ci six cent mille tonnes lay tollu donc di wax ne kon lim ba xaw nañ ko sori tuuti. yëngu ci fànn bi di sàkku ab ndege moo xamante ne dañu ciy woo képp koo xamante ne acteur la ci wàllug mbay mi fii ci réewum Sénégal ndax ñu ndëpp li ñu mel di gis-gisu opérateur économique yi fekk baax fii ci diwaanu Kaolack seen njiit El bu gumba la waxtaan bi paasewul lu ko defar pour que suñu réew mun a développé parce que réew mu développé rek agriculture moo la yóbbu ca kanam di ñaax état mu gën a góorgóorlu gën a jàppale suñu industrie parce yaa ngi exporté xëyum ndaw yi ñoom nag rafetlu nañu njëkk li nga xamante ne nguur gi moom la tegoon ngir ñu jëndee ko li nga xamante ne moom moo di kilo gerte gi waaye nag ñu ne campagne bi moo yéex tàmbali tax na nag ñuy woo jëwriñ ji nga xamante ne moom moo leen njaboote mu xoolaat toogaayam waaye tamit teel a jàpp date bi nga xamante ne moo ñeel campagne bi soxal la njënd ak njaayum gerte gi jaajëf Cheikh Tidiane Diagne duñu la bàyyeegum dañuy des ba tey rek ca googule mbir ak njiital Phénoxité boobee doon dellu siwaat nag ci wàllum commercialisation mu doon doxee ak it nag coowal bon impayé yi ñu doon dégg la ci dëgg moom nag El Hadji bu Gumbala andi na ci ay leeral ci micro Cheikh Tidiane Diagne. xam nga bon impayé moom mooy que ne maanaam da ngay dem ci seko bi nga jaay loolu yomb na pour contrôler ko parce que bon impayé amoon na fi mais jeex na ci réew parce que amul benn béykat boo xam ne ne nangu na joxe gerteem nga jox ko xaalis te bon impayé lu yomb contrôler tey seko yi nga xam ne ñooy commercialisé yi ñooy ñëw nga ñëw ñu noteel la buñ la notelee fayuñ la loolu mooy bon impayé mais da nga naan naan facture impayé boo nee facture na la waaw mun na nekk am na parce que am na ay producteurs yoo xam ne si ne xëy na dañuy dajale seen gerte sax yóbbu ko usine opérateur bi jël gerteem jënd ko ci baykat bi yóbbu ko usine fayuñ facture impayé mun na am mais bon impayé moom ku ko wax man jàpp naa ne amul te gisuma ko te lu yomb a contrôler baykat yooyu di wax ne dañoo am bon impayé da ngay dem ci seko ba lu yomb a contrôler mun na nekk nag am ñoo xam ne si ne ay yoo xam fi indi trois tonnes ñu dajale ko def ko ci seko ba war ko def jiwu war a am ay financement nag ci banque ba financement yooyu yéex a ñëw loolu mun na nekk mais quant commercialisation bien impayé loolu na ci réew lu ci waral coow li ba gars yi ne léegi mu ngi en tout cas bu fekkee jeex na fii est-ce que amul benn côté bu mu am te yéen xamoo leen non ñun gisuñ ko wax dëgg yàlla te mënuñ wax ne am na déggoo li ma la na am koo xam ne si ne ay organisation paysanne yoo xam ne si ne dañoo jël seeni gerte dajale ko def autorisation la. war a dem ci banque ba banque ba war leen a financer xaalis boobu bu ñëwul kay joxe gerte dañ lay jox këyit bu ci ne sa production ba dañ lay jox këyit mais këyit googu ñu lay jox na mun nga dem yàkkamti ne fayuñ la fekk yéen seen organisation paysanne moo am mais kanta les opérateurs commercialisation kooku amul benn opérateur bu am un bon pay mun na nekk nag ci organisation paysanne yi mais nekkul opérateur boo xam ne dina dañ la agréé nga nekk ci point de collecte di fa jënd lef fa gerte fayoo ko loolu amul. yéen xibaar yi ci Alfayda

90 point 1. Euh, lii nag euh, junjoon naa leen ko rekk ci euh, bopp xibaar yi talaata bi ñu génn nag chambre criminelle bu tribunal grande instance bu Kaolack bi daal di nay àtte nag ay mbir yu doy waar bari te wuute gënoon na caa fës nag wàllum yàmba wàllum càcc ak coowal kër bu àgg ca loxol yoon Cheikh Ababacar Dieng. néeg bu am benn armoire benn lal coiffeuse ak télévision ak fukki junne ci kopparu CFA ànd ak mboolem yére yu mu amoon Mamadou Ndiaye la ngóor tudd juddu mu ngi ci mbir kilaan dafa jote woon ak ndaw si ñuy wax Ndeye Yacine Kassé mu taal néegam lii mu ngi am ci weeru mai atum 2017 lépp nag mu ngi jóge ko ci Ndeye Yacine Kassé mi dafa doon dóor doomam yaayi Ndeye ci boppam maanaam maami xale bi ñëw dox seen diggante ñu ne Ndeye Yacine dafa dóor yaay ji yaay ma yooxu Mamadou Kassé ñëw di ko atte jàpp Ndeye Yacine dóor ko ba ñu di ko toggal xewar ci bët set Ndeye kase Kassé dem ca gendarmerie porte plainte yaayam ak Mamadou Ndiaye mi ko dóor yaay ji jaar ci ginnaaw rocc plainte bi xamal leen ne Yacine mi nekkul ak sagoom maanaam day daanu gàngari ci nii nag gendarmerie topp yaay ji ci càkkutéefam boobu ne Yacine Kassé toog ay fan gis ne gendarmerie jàppul woowul yaayam ak Mamadou Ndiaye mu delluwaatal boppam ba mu demee gendarmerie na ko yow dof nga duñu wax ak yow mer moomu la indiwaale ci dëkk bi tax mu dem taal néeg Mamadou Ndiaye ngir fay dóor yu mu ko defoon ba muy jotee ak yaayam ci kanamu chambre criminelle bi nag moom de Yacine Kassé mi ñu tuumaal ay awakaam nañ fa ay këyit yu wane na yaramam seddul day tàggoog sagoom moom ci boppam it bu waxee yooyee nga xam ne léegoo léegi mu jàdd ci mbooy gi yaayam ak Mamadou Ndiaye teewoon ci tribunal bi ne baal nañu ko gannaaw juróomi at yoo xam ne mu ngi ci biir kaso bi procureur nag càkkutee fa moo doon juróomi ati kaso ngir Ndeye Yacine Kassé ca njeextal ba nag président chambre bi la jël koom dogal mooy Ndeye Yacine dañ koy ba mu ñibbi ndax wéerul beneen mbir moo xam ne atte nañu ko ci chambre criminelle bi ci bis bu njëkk bi mooy mbiru mark Manga am ndaw lu góor la da dawal oto diggante Ziguinchor Dakar moom nag nee na yëngu-yëngu moo di jaay limo dañu ko bëri douanier yi ñoo ko jàpp waaye moom lam teg ci kanamu àttekat yi mooy yamba boobule sama benn fidèle client bu nekk Casamance daan ma utal limon ci àll bi rakkam mu ma ko yóbbante ndax sama client boobule du Omar dafa feebar mënuñu ko faj ñu ne ma su ma yóbboo yamba ji dakaar jaay ko xaalis bi ma yóbbante leen ko dañu ci mën a faj Omar ndax Omar nag sama nit la woon ginnaaw plaidoirie boo xam ne yàgg na lool avocat am def ko chance bi dañ koo yëkkati ñëwaat tribunal lam dogal mooy dafa fekk ci procureur ci càkkutéefam fukki ati kaso la monsieur Manga mi mii di tëdd boole kook alamaanu juróomi million ñaareelu mbir mi nga xam ne nag chambre bi dina ci sëgg moo di mbiri Abdoulaye moom nag dorog la ñu koy toppee beneen yi nag mu ngi soxal Doudou Ndiaye ak Diène Athie ñoom nag càcc gu nu waajal def ko ci guddi te yoroon ngànnaay gu ñu tere leen leen di toppee. jaajëf Cheikh Babacar Dieng bu dee nag mbiram Daouda Ndiaye ak Diène Athie moomee nga xamee ne ña ngi loon doon toppee rek wàllum càcc gu ànd ak yoru ko ngànnaay ñoom nag seen ko procès dañu ko dàq rek ba le 17 juin daañu ci dikkaat nag bu ñu desee rek ci coowal Ndeye Yacine Kassé moomee moom nag avocat ba ko doon layal dikkaat na rek ci dossier beeg la ca nekkoon laata itam muy rafetlu jëmee ci tribunal ak dogal ba mu joxe jëmee ci client am ngi ci micro Cheikh Babacar bi ma ci njëkk am mooy tribunal dafa appliqué li ñuy wax yoon. parce que feeñ na ci dossier bi. kii di sama cliente kat xel mi neexul. xel mi neexul boobu ni mu koy dikkale mooy daf koy defal ay crise crise yi nag bu ko dalee day def yenn ñaawteef yi. pare crise bi jàllee a na naka su dul noonu loolu nag du rek lu mu ñu wax mais lu ñu ay mbokkam wax la mais loo xamante ne ki nga xam ne ab psychiatre la nga xam ne xam-xamam ci loolu la màcc moom ci boppam moo fësal dëggal ne kii kat par moment xel mi du ànd ak moom maanaam dafay am li ñuy wax crise d'épilepsie ci loolu nag la ñu sukkandiku ñun aussi gannaaw bi ñu ko gëmee gëmloo ko tribunal bi heureusement pour ñun tribunal topp ñu ci loolu donc tey mu jël dogal ne ginnaaw article def daf ne bu fekkente ne nit ki dañ koy topp ci loo xamante ne ba mu koy def ànduloon ak sagoom dañ ko war a bàyyi donc tribunal tiré ci toutes les conséquences bàyyi ko ñu ciy sant tribunal bi waaw. nga def plaidoyer bu bokkul lool day mandarga ne amoon nga yaakaar ne boo bu xumb na ci gis-gis la. waaye des fois dossier mooy demee noonu. parce que xam nga da ngay jàkkaarloog ñoo xamante ne. dafa am gëm-gëm boo am. nga war leen ko gëmloo. donc loolu day laaj des fois. nga def ay façon pour ñoom ñu xam li nga bëgg. mais dossier bi man bañ ma koy jox. ba fi ma toll nii mosuma ci am doute maanaam mosuma am njaaw njort ne nii lay demee jàpp naa ne nii rek la mënoon mujjee. parce que borom xam-xam dafa wax ne kii kat lii moo moom loolu la jàng maa la psychiatre la jàng moom ma jàng la moo jàng ñëw nañu lii moo am dañu war a rek tirer ca les conséquences comme ñun aussi waaw juge yi damay rafetlu seen taxawaay juge yi ak procureur yi parce que ci rôle am la nekk man damay souvent wax ne man su ma amee dossier fii tribunal kaw rek damay tëdd nelaw ba yandoor parce que damay jàkkaarloog juge nga xamante ne non seulement dañu mën seen liggéey dañu am xam-xam mais dañ koy appliquer lenn rek laa leen di reproché mais des dañu xaw tàng loxo <laughs> loolu moom dama leen koy répété wax naa leen ko jàkkaarloo. mu nekkoon ay kàddu yi euh, maître Adama Ndiaye euh, ka nga xamee ne nag ne mooy waajur bu euh, jigéen bu ndey Yacine Kassé moom it tamit nag teewoon na ca audience ba dëggal na itam ne doomam joojee nag dafa daal di wéradi lu ko jiitu itam ma ngay rafetlu àtte baag na mu doxee wane ca mbégteem jox Kassé ne ma ngay sant yàlla ci mbir yaag na mu demee ay kàddoom ak Cheikh Babacar Dieng. xanaa sant yàlla rek ndax man damaa sonn trop moom rek laa am waaye nag ah, lii la yàlla dogal moom ak suñ juddu yàlla lu natt ci bi kenn mënu ci dara waaye comme jeex na rek sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin moom lu ñu ko doon mu poñe mu lakk néegam noonu daal la demee problème bi daal loolu la yow tey bi nga ñëw fii yaa nga doon xalaat ne buñ ko àttee dinañ ko baax mukk ci àddina man xalaatu moon loolu de daf bett sax dama doon toogoon ne buñ ko àttee kay dañ koy àppal ma xam heure ba nga xam ne bi dina ko war a génn ba yegg see mu génn waaye nag géetu tey bi moom bett na ma yor crise bu koy daaneel te crise bu ci amoon sax daanu jóg sax waaye dafa mel ni dafay walbati xel mi daal lu ne def naa ko ci moom lu ne fu ne yóbbu naa ko am na benn doom bu jigéen am borom nii daal ñu attaque moom kontaan nga ci waaw trop kontaan naa ci moom mbir ki laan xibaar yi ci Alfayda euh, nañu nag ci euh, xët yi nga xamee ni moom la ñu euh, jagleel nag li nga xamee ni moo di koor gi dañuy delluwaat nag ci dëkk bu sell ba di Touba foofee nag ci jamonoy weeru koor gi nag koddu jàppaleen na rek joxam ndogum Baay Faal ya jamono ji ma ngay gën di biir waaye tamit nag di ànd ak mbégte ma Mamadou Moustapha Mbaye waa kër maam Cheikh Rafal delloo buum ca boy boy ba ni ku ñu ñu koy defee saa su weeru koor jotee di togg ay ndogg yu bari te neex jébbal ko waa kër Serigne tubaa moo ne lu nu mel des na ko seetlu it fu mel ni njaareem foofee nga xam ne Serigne Touba def na fa diir waa kër Serigne am di xadifal des lu nu ginnaaw benn yoon. ndax noonu Baay Faal yi kat wut andi rek kan war waaye nag dañ na bari cere neex aw séddalin xamu na ko gën te ñi fi nekkoon de xam nañ nañ noonu ku ñëw ku ne da nga loo xam ne sa morom mosu koo xam mbaa bu ko xamee mosu koo jëfe ndax yaa ko moomoon sab cere yaa ko dencoon sëñ Muntaxa mii ba yàlla lii am te mu toog a jataay booba daa ñëw ne dañ ko andi leen ndogu dana toog leen mu toog mu naa ah, man kat lu ma fekkoon sama baayee di ko def mbaa sama mag yee ko def dama ko yokk waaye dama ko wàññi dama bëgg ku dib sët ne man Sëriñ Tuubaa jur sa waajur fu mu ne nañ ko fa fekk yot ko ndab moo xam ku fi nekk la moo xam ku fi bàyyeekoo la ku fi nekk dañ la yot ndab ba fa nga ne ku fi bàyyeekoo ku la fi nekkal dañ la koy dal ndab kon loolu ko koo xam dolli woon na ko ci mbir mi Moussa Fall mi nga xam ne moo njëkk wutu maam Seera Fall liggéey booba di ko def ak mboolem ay rakam ñu ko yóbbu ci sëñ Moussa Mbacke ba sëñ Moussa Fall jóge fi sëñ Mortala Fall wutu ko ñetteet di def liggéey booba sëñ moo Fall jógee mu maam Seera sëñ Ablaye Fall dara wutu ko mi nga xam ne mooy borom kër gi wutu ko ci liggéey booba danga ko def ñaar fukki at ak ñett wala ñaar fukki at ñaar daan togg di yóbbu kër sëñ Tuubaa gi nekk njaareem kër sëñ Basiiru ak daan togg fii yóbbu ci sëñ Fallu loola it at mu njëkk ma moo ko toggal boppam yawel soxna benn fàllu fii sëñ si Fall Mbawar nekk te déwén sa nag sëñ Ali Fall Mbawar di ko togg di ko yót sëñ fàllu moom sëñ Ablaay muy togg di yót sëñ Basiiru loola noonu la liggéey ba tëddee ba mu si ci sëñ Assane Fall mu doxale ko noonu juróom at wala juróom benn at mu agsi sëñ Abdou Sakkour Fall mu doxale ko noonu jamono yi sëñ mu réewante nag ci la sëñ Abdou Lahad Mbàkke nag xam ne kër sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa dafa màgg fukki bunt kër la ak benn maam Cheikh Rahane Fall fukki bunt kër ak benn te mu xam ne waxtu nekk fukki ndab yooyu ak euh, ñeent yooyu nga xam ne tegaal si ñaar ndab fukki ndab ak juróom benn yooyu du mën a matale ni nga ko bëggee sëñ Abdou Lahad ci xëram ci yaatuwaayam nag mu woolu sëñ am Modou Ablaye Fall sëñ Amdi Khady Fall sëñ Abdou Aziz Fall moom sëñ Matala Fall sëñ suñ sëñ Abdou Sakkoor ak ñi si des jox leen ndigal ne leen togg ay ndog di ko indi loolu nag ci la gën a yaatoo ba nii. Mamadou Moustapha Mbaye Touba Alfayda FM. jaajëf Mamadou euh, Moustapha Mbaye dañuy ànd ak yow nag daal di dikk rekk fii ci euh, diwaan bi ñaar fukki fanu weeru koor gi nag ku nekk dégg na ko waa kër maam Cheikh Fall yi muy nag bés boo xamee ni am na taarix lool rawatina fii ci euh, diwaan bi moom mi nga xamee ni moo di Serigne Mokhtar Wade bokk ca ña koy taxawee dikkaat na ca taarix ba mi ngi ci micro soxna Ndeye Fatou Cissé. suñu ñaar fukki fanu koor gi muy ñaar fukki fan ci weeru koor tombeek bisub ca Mbàkke Kajoor la ca ngi gis Bàmba loolee ba mu amee nag ci jëfi Cheikh ak doxalin wa ak pas-pas ba yitte ja ak bëgg mu doonoon ko wormaal sëñ bi lool ba noonu ko sëñ Moussa Ka waxee rek ne yàlla wa wa sallam sëñ Moussa Ka wax ne Cheikh Ibra mas nay xibaar ak gébbaloom bay wax ne yàlla mii ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe tegtal ko yoon wa am murit di aw ba raw pexe mërit ba am ngërëm bëri murit te doo tëree tex tex loolee kon digalal sunu borom la ci si Cheikh Ibrahima Fall ci liggéey boobee ca lañu ànd yàlla dogal ab diir bis ba mel na lu fët sëñ Cheikh Fall Khady Gueye di ko gëstu ba xam ko feneen foo ko déggee it nag sëñ Cheikh Fall Khady moo topp toowaat bis ba xam ko daf koy def at mu jot mu def ko ci barab ci la ko indee Kaolack gi ne bu déwénee da ko yóbbu feneen bu déwén jegee mu yóbbu ko feneen far bi ko defee Kaolack mage murid yi ak njaboot gi nekkoon Kaolack nga daaw ci bis bi ne leen ko sëñ bi di ko di ko def ba yàlla dogal mu wàcc ab liggéey ca xel joxoon ñu nekk ca ba yàlla dogalee nag mu wàcc taawam bu tedd bu baax bi di Serigne Fallou Fall moom Serigne Cheikh Fall liggéey bi. bés boobee nag fa nga xamee ne rek ne fa la ndigal li jóge ko woon ña ko a taxawee li taxoon itam rek ñu jëlee ko fa ñu tuddee Santhie Mor Talla Fall yóbbu woon ko terrain déggoo delloo siwaat ko loolee lépp nag ma nga cey dikkaat rek moom Serigne Mor Talla Wade ba tey ci micro soxna Ndeye Fatou Cissé. màggal gi ci digg nawet bi la daan nekk te barab bi nekk barabu ndox xamee ne dafa nekk barabu ndox ci la sëriñ bi nag daal di fab màggal gi toxal ko génne ko ci bitti li tax ñu delloosi ko fii mooy fii la juddoo fii la yaroo fii la màgg léegi nag sama borom dogal sëriñ bi génne ko ci lycée bi ngir mu gën a woyof ndax ni ko fi kilifa bi daan fekkee ci lañ ko nekk nag di ko def ci terrain bi ba mu ko fa indee suñu borom dogal na ñoom ñañ fa fekk matale nañ yaataloon nañ ñu lool dalaloon nañ lool te luñ mës a amit jox nañ ko sëñ bi ngir bëgg bi jàkk wala bëgg bi mel a mel nañ koñ bépp muy Baye Mortala Cuun ak Baye Mbay Jaañ di ñaan yàlla nañ leen yàlla fa yàlla ak njaboot gi sëñ doolee yàgg ñoom it doolee wér bu yàlla dogalee nag nawet bi génnaat koor gi ci la sëñ bi ne kon na dil siwaat fa mu juddoo yeggale fa ak dundam moo tax sëriñ bi delloo siwaat ko fii mu doon bis boo xam ne bisu la boo xam ne mi ngi jël ndigal li ci Cheikh Mouhamadou Mountakha jële ko ci sëñ Amdi Fall xalifa maam Cheikh Raya Fall di sëriñ Amdi Modou Mbenda jële ko ci kilifaam gu tedd gi di sëriñ Fallou Fall moom sëñ Modou Aminta di ñaan ñi nga xam ne ñoo ko doon taxawee muy sëñ Cheikh Fall jëmb ñi nga xam ne waxtu wi daaw Mbaaw moo joxe woon digal li sama borom doolu ci moom leer doolu ci moom yërmande sëñ Cheikh Fall Khady Gueye mi ko taxaw woon sama borom doolu ci moom yéer doolu ci moom bis bi sëñ Touba ak Cheikh Ibrahima njëkk a joxe seen bopp de defe naa bis ëpp ko doole ndax bu jébbalu ga amutoon jaayante ga amut taxawaay bi amut yaakaar naa ne lu bëree bëri bi manaam kon yëf nag bu yëgsee ba fii mel nii kenn ku loo ca def dana am loo ca ñàkk yëpp nag kenn ku nekk mi ngi ñaan yàlla fekk loolu bisam ba nga mën a dollu ko taraanga jagaaboon kon nag bis bi ni mooy bisu teraanga yoonu murit kenn ku ci nekk nañ ci def yitteem def ci bëggam bés boobee nag ba ñu koy tàmbali ña nga ko tàmbali woon rek ca sànc Mor Talla Fall gannaaw gi nag ñu yóbbu ko fu jege lycée Valdiodio Ndiaye yóbbu ko itam fa nga xamee ne moo di takk terrain à déggoo waaye jàppale ne jamono ji delluwaat nañu ko rek ca sànc Mor Talla Fall ñu wéy uh, ba tey ak lu soxal nag wàllum koor gi uh, koor googee sax nag junjoon naa leen ko bu daal di yegsee rek li bari ci askan wi nag dañuy faral di wax naan uh, saison bi ibbi na muy itam nag ay kàddu yoo xamee ne ñenn ñi rafetlu wuñu ko bu ñu sukkandikoo nag ci ki nga xamee ni moo di borom xam-xam bii di Cheikh Taha Assane Deme ma ngay wax nag conférence yi nga xamee ni ña nga koy amal lay njëriñ li ci bile reportage bu Alioune Badara Diop. jamonoy weeru koor gi nag dañuy faral di gis lu bëree bëri ay conférence ci sunu diwaan jàngat mi nag lenn kese la mooy yokk sunu ngëm yàlla ci waxtu weeru koor gi lii naam sax dañ koy def lu dul weeru wante fi ñu toll nii jot gi maye na ko lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Cheikh Cheikh Taha Deme. waaw alhamdulilah weeru koor moo mel noonu weer la boo xam ne weeru yërmande la weeru xéwal la weer la boo xam ne su teroo rek seytaane yi ci boppam yonent bi nee na yàlla def leen di jéngi ba tax def ci lu baax ak góorgóorlu ci diine dellu ci yàlla def ca yomb te temps ci lay gën am xëy na moo tax ñu bëri su weeru koor jotee ñuy organiser lu mel ni ay conférence ak ay jotaay. ci waxtu bi nag ñuy faral di gis tooñ tooñ nga xam ni dañ koy tooñ yéen ci ay oustaz naan campagne bi ubbi na wante Cheikh Taha dem moom gisul li ni mel ndaxte nee na oustaz yooyu li ab mission lañ am bu ñu war a accomplir. oustaz nag ak euh, conférencier yi waruñ di leen tooñ ndax seen liggéey mooy jottali diine ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa nekk yonent bi yàlla moo ko digal ne na jottali li nga xam ne yónni ne ko mu jottali ko jottali bu rafet yàlla seede na jottali na ko jullit yëpp malaaka ñëpp seede na yonent sotti li na li ko yàlla santoon ndax it nit ñi tamit ñu bëri ñooy faral di organiser ci weeru koor na ustaase organiser lu seen bopp dañuy organiser di leen oo ñoom ñu ñëw di jotal liñ mën a jotal ci xam-xam dina doon neex trop ñuy organiser conférence yi bu dul sax ci waxtu weeru koor gi lee ndax dinañu may ñu yokk sunu ngëm yàlla teg si di mun rafetal yenn jikko yi jëmale ko ci sunu diine kon jullit waxtu wu nekk rek war naa góorgóorlu di dooleeku ci xam diineem waaye di dooleeku ci xam yàlla ak ci bëgg yàlla ak ci topp yàlla allah weeru koor nag weer la boo xam ne bonus la ndax yonente bi mu ne weeru yërmande la weer la boo xam ne ci la yàlla wàcce alquran weer la boo xam ne guddi mi ngi ci biir weer boobu noonu jaamu ci yàlla mu ngi toll nga jaamu yàlla ci junne weer looloo tax nit ñi di profité ci weeru koor di ko màng di ci góor góorgóorlu pour rek dajeeg bis boobu nga xam ne mooy bisu liratul qadri yi nag foo ko nattu na ko ci bariwaayam ci waxtu weeru koor gi kilifa diine yi dañ koy rafetlu bu baax a baax ndaxte li ci ëpp ci waxtaan yi lee wàllum jikko yi la ñuy wax teg si di ñu fàttali suñu sang bi tedd bi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naam sax sunu réew bi di Sénégal quatre vingt pour cent yëpp ay jullit lañu. jaajëf Alioune Badara Diop yegsi nañu nag ci li nga xamee ni moo di yóbbalu koor gi tey jii nag dañuy jàngi ji rek ab saar bu yees oustaz Mouhamed saw di ca waxtaan ak soxna Ndeye Fatou Cissé. tey suñu saar tey mooy saaru al ñu koy wax suuratul araaf mooy verset al araaf araaf baat bi pluriel la maanaam jamu la lu bari la singulier bi mooy orfun orf lu muy firi mooy lépp lu kowe lan moo tax ñu tuddee saar bi saarul araaf borom bi subhaanahu wa taala dafay nettali miir bi nga xam ne moo dox diggante aljanna ak safara te mu nekk kiiraay bi nga xam ne moo dox diggante ñaari kër yooyee mu ne ci miir boobee am na ay góor góor yoo xam ne fa la ñu nekk nekk ci kaw miir ba di gis waa na di gis waa safara te itam xàmmee fa ay nit ñoo xam ne dañ leen xàmmee woon fii ci àdduna ñoo ñu nga xam ne ñoo nekk aaraaf nag ñoo nekk ci kaw miir boobu di gis ñaari kër yooyu yëpp ñu woo waa aljanna ne eh yéen waa na yéen di am ngeen jàmm te boobee ñoom waa la araaf duggaguñ aljanna te fekk ñu ngi ko xemmem lool ñu woo waa aljanna ne leen yéen de am ngeen jàmm yéen ñu tàbbi ci na am ngeen jàmm te fekk ñoom tàbbeeguñu aljanna te ak ñu ko xemmem nag ndeysaan borom bi jàlla ci leen ñu xool waa safara wa ida surifat absaaruhum tilqaa ashaabi naar buñ leen tourné ñu xool waa safara dañuy tiit lool gaaw ñaan ne ey yow suñu borom bu ñu boole mukk ci gaa ñi nga xam ne ñooy gaa ñi daan tooñ mooy gaa yi kat yi bu ñu boole ak ñoom de rabbana la tajalna ma al qawmi zalimin histoire boobu nga xam ne nag ñi taxawoon ci laaraaf nga xam ne seen yu baax yi bëriwul ba yëpp mën leen yóbbu na seen yu mbon yi aussi bëriwul bi mën leen yóbbu safara ñu nekk foofu ba bi jàll waa taxawaay boobu la borom bi jàll wala di nettali ci saar bi xabaar yi bitim réew xabaaru euh, biti réew yi Alioune euh, Badara Diop ana foo koy dooree jërëjëf euh, Ngoné Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy doore réew bu Burkina Faso ginnaaw ay at yoo xam ni ki fi nekkoon président bu Burkina Faso di Thomas Sankara dañu àddu woon ci li nga xam ne mooy procès boobule mu amoon juróom-benni weer yoo xam ni dañoo nekkoon ci audience bi ni mel ba verdict boobule jot na génn ci juróom-benni fan ci weeru avril bi ñu weesu wante ci fàttali mën nañu wax ni kii di Blaise Compaoré moom mu moom la ñu wax ni moo def li ni mel ak yeneen doomu aadama yoo xam ni ñoo bokk ci mbir moomu ngi amoon ci atub 1987 foofu ca réew bu Burkina Faso. xabaar yi bitim réew. dem ba réew mu Mali wax ci force française bi nga xam ne moo nekk fële ca Barkhane ginnaaw ci loolu ñu ngi yëgal nii jot nañ fa jàpp luy tolloo ak juróom-benn yi doomu aadama yoo xam ni dañoo bokk foofu ca Gossi mbir moomale mu ngi am ci dibeer gi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ginnaaw bu ñu sukkandikoo yenn ci ay xibaar foofu ca Barkhane wante mu mel nii kuréelu française googu ne moom nangul benn yoon tuuma yi nga xam teg na ko ci ndoddam xabaar yi dem ba réew bu Tunisie wax ba tey ci li nga xam ne moo réfugié yi nga xam ni dañoo nekk yu doy waar ci mbedd yi léegi donte ab sitting di ñaawlu anam yi nga xam ne nekkee nañ ko foofu donte sax ay daw làqu lañu ba tax na ñu ngi ñaax autorité yi nga xam ne ñoo nekk foofu ngir que ñu jëm leen déplacé yi yóbbu leen ci yeneen bërëb yu mucc ayib. xabaar yi bitim réew. ba tey ci xibaar bitim réew dañuy dem ba fi nga xam ne mooy réew bu France wante dañuy àddu ci li nga xam ne mooy législative yi ki nga xam ne mooy Jean-Luc Mélenchon ci fàttali moom mu la bokkoon na ci li nga xam lenn kese la mooy fexe ñu ko mu premier ministre bu réew bu France ginnaaw ci loolu la dénk na askan bi ay kàddu yu am solo ngir kat mën a def tànneef bi gën ci seen réew. xabaar yi bitim réew. jeexale xibaar bitim réew ak réew bu Colombie benn doomu aadama moo fa jot a ñàkk bakkanam ginnaaw askan bi bi ñu wàcc ci mbedd yi lee foofu ci Sri Lanka doon ñaawlu yenn ci ay doxalin mbir moom la ñu ngi ko amal ci talaata bi ñu weesu donte sax fan yi ñuy weesulee jot nañ wàcc ci mbedd yi wante mu mel ni bii moom moo ci ëpp doole ba tax na kenn ñàkk na ci bakkanam ak ñaar fukk ak ñeent ñoo xam ne jot nañ ci am ay gaañu gaañu tamit ci fàttali jàmbar yooyu lee doon leen lu dul wàllum crise économique bi am seen réew. xabaar yi bitim réew. jërëjëf ngoon yi foofu la ñu yem ci li nga xam ni mooy xibaar bitim réew yi kenn dala jàmm. ngoo bàngook xabaaru uh, tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay tey nuyu mbokk auditeurs yi di leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak uh, làmb ñaar fukkeelu édition beeg ñaar drapeau chef de l'état xam ngeen ne njaare moo ko ay ren ji nag ñu dëkkmal ko ci weeru mai gi ñu dëkkmal ci lay amee fii ci njaareema CRD bi nag amal nañ ko fii ci gouvernance bu njaareema ci teewaayu jëriñ gi dénk wàllum tàggat yaram Matar Ba ak njiitu CNC bi di uh, Bira Sène ba ñu génnee ci CRD bi nag Matar Ba Ba lii la wax ci wàccaayu drapeau chef de l'État di leen gërëm ci taxawaay bi ñëwoon tey njaareem parce que pour wax wolof dëgg li naan njaareem la ñu ñëw tey mm. di gërëm bu baax gouverneur di ko sant ci taxawaayam mu dajaleel ñu fi nag ñëpp ñi nga xamante ne dañu am liggéey bu ñu war a def ci li ñu tuddee le drapeau du chef de l'État ñu nekk nag ci ñaar fukkeel ak ñaareelu édition ñu war a ñëw fii tëggee ko fi may wax nag li ñu fi jëlee tey wane na ni Jurbel gii ñu nekk njaareem dëkku làmb la dëkku la waxal décision yi mu ko war a jël yëpp jël na ko ba tax na président CNG Birage Sène ñu koy sant ci taxawaayam bi mu waxee ba pare am fukki point yu mu teg ci kaw taabal bi gouverneur amoon na réponse yi ba pare wane na ne fi ñu jëm suñu xel war naa mën a dal li ci des rek mooy demande responsable yi fi nekk ci wàllu wuñ mën a ne te nekk ay doomu Jurbel di góor di jigéen ñu ñëw jàppale organisation bi non seulement jàppale région bi mais jàppale CNG bi nga xamante ne bàyyi na région yëpp ñëw fii ci Jurbel pour bu organiser li ñu tuddee le drapeau du chef de solo gi mu am nag moo tax ma ñëw fi tey présider lii nga xamante mooy réunion bii ci région bi bokkook chef de service régional yi fi ne mais bokk ko it ki nga xamante ne moom mooy gouverneur ñu toog waxtaan tënk lépp jëm ci yëf yi yemb yëf yi Ba daal dina fay jaarale proxmo waale waxaale ci li nga xamante ne moom mooy defaraatu stade Lat Dior Léopold Sédar Senghor Elimanel Fall Lamine Gueye ak Aline Sitoé Diatta moom jëriñ gi ñuy dénk wàllum tàggat yaram nag nee na fu mu toll nii matériel bi dong la ñuy xaar rek ngir ñu door li nga xamante ne moom mooy defaraatu yooyu stade ñu dem ci dëndoo Coupe Europe waxtaanee fanweeri bëccëg beeg ñett Liga Espagnol tey bu juróom waxtu jotee Levante mooy laaleeg Séville Espagnol Barcelone di laaleeg Rayo Vallecano Cadix di laaleeg Atlético Bilbao bu juróom benn waxtu jotee Real Sociedad di laaleeg ak FC Barcelone démb Atlético Madrid ak Granada ndam demul ndam dikkul Celta Vigo dafa ñàkk ci kanamu Getafe ñaari bal ci dara Osasuna ñàkk ci kanamu Real Madrid ñetti bal ci benn fukkeelu bëccëg beeg ci Angleterre Everton ku nekk benn bal nga Arsenal ñaari bal ci ñeent Newcastle am ndam ci kanamu Crystal Palace benn bal ci dara Man City am ndam ci kanamu Brighton ñetti bal ci dara fanweeri bëccëg beeg ñett Ligue 1 ca France Monaco am ndam ci kanamu Nice benn bal ci dara Bordeaux ak Saint-Étienne ku nekk ñaari bal nga dugal sa morom Lorient am ndam ci kanamu Metz benn bal ci dara Reims am ndam ci kanamu Lille ñaari bal ci benn Troyes am ndam ci kanamu Clermont benn bal ci dara Marseille am ndam ci kanamu Nantes ñetti bal ci ñaar Juventus dafa am ndam ci kanamu Fiorentina ñaari bal ci dara daal di dem ca final bu dee demi final Coupe d'Allemagne Leipzig moo am ndam ci kanamu Union Berlin éliminatoire CAN 2023 ñu ngi programme yi nga xamante Confédération africaine bu football war ko fësal nag ngir ñu a jàpp ni rek des na ko amal fanweeri fan ci weeru mai ak fukki fan ñeent ci weeru juin gi ñu dëgmal la ma ngoog Ngoné gannaaw ba la ñaanalee kandaay yu jàmm li ma a jëf. xibaar yi ci Alfayda. dañuy euh, ànd ak Bara Diop ci euh, kooru gay moolum géej kooru gay moolum géej o xaaj Ibrahim gay tey jile ci la ñu toll ci wiraas bu mujj bi fukki fanu goreel ci safara moo des ci kooru ren gile fukki fan yu mujj yile ci la guddi gu gën junne weer nekk leelatul xadri te kat fukki fan yile lu jullit doon jaamu yàlla da ko war a ngir dajeeg bés boobule o DG kafewu ko organiser na bu baax programme am ngir mbatal kooram ci mukaayam tey jile baax na imaam Cheikh Ahmed Tidiane Aliou Cissé la seeti ji comme xam na waayam jile ci la ko dalal ci saalam foofi la toog te kurusam kilim bi du ëpp loolu ak loolu DG di xoggale ko rek teg lay tànk taal tele bi jàpp Al Jazeera Haj Ibrahim heure bi mel ne luy waxu simileeg saa tisbaar jot DG moo ngi ci nar dal kon tisbaar jot na ay de muur la yëgu ma dara ci koor DG na muy waxee xelam imaam génn rek euh, te ci loxo bi jumaa ji la ko jëmee DG daa génn rek naaj bi tàngal bopp bi mu joxe ngànt <laughs> damaa fàttee yeeslu maa ngi ñëw maa ngi ñëw dil ba dal na delluwaat na ca saal ba imaam dem dikk xaaj ibrahim <laughs> naka may noppi rek ci laa dégg góor di la xam ma xam ne laataa ma yegg rek ñu sulmal ba foofu jullee fi <laughs> imaam ah waa baax na macha allah julli mbooloo daal bokkut ak julli benn nit ne gën gi min def ne salaatul jamaati afdalu min salaatil fadli bi sab'in wa ashrina daraja julli mbooloo ëppee na julli kenn nit ñaar fukk ak juróom ñaari daraja farlu ci dégg nga <laughs> <laughs> dégg naa o oh, xaaj ibrahim naka ñu toogaat tuuti rek mu daldi forbët ñu teg ci ay simili imaam génnati tàkkusaan DG AR ah, da ngay demaat yow nar ngaa sonn de kon julli juróomi nii ngay baagante war naa xoolal sama bopp de noonu lay gijee jumaa ji imaamul akbar xaaj ibrahim ku julli mbooloo ci jumaa day bokk te ñu suñ borom di keral yowmal qiyaama te yoolug julli mbooloo mooy yoolug nga fanaana julli guddi gi lépp te kat dalay indi leer gu mat sëkk même malaaka yi ñoo la koy seedeel DG <laughs> am na solo macha allah o xaaj Ibrahim soo ko waaree rek mu daanu tax mu ànd ak imaam nara julli ji tàkkusaan daa génn buntu kër gi rek naaj bi jamaat ko mu fakkas salu xaw tuut weem mu jël temps ci suuf imaam continue ak yoonam DG delluwaat na ca saal ba bandab tànkam yemu ca comme borom connaissance la daa woote rek hôpital imaam Assane Cissé docteur Ndiaye daal di ko fa yebalab agent naka mu xool ko rek ñamal ko benn pikiir o oh, xaaj Ibrahim Gaye noonu la nekkee toog ci saal bi rek noo dëgg bër DG përëxëti <laughs> jàpp naa ko en ordre alhamdulilah yàlla duma seetaan o DG félicitation ñu teg euh, ndogulu bakkane DG di muñ rek ne xol bi sedd na Haj Ibrahim di waxtaan rek <laughs> li nga doon wax ci jullit mbooloo ceet su ma génnee fii tey doo dama ko tardeet du ba am solo waaye tàkkusaan bi sama pakka solo bi ñu woon na njaay yebal na fi benn médecin pikiir na ma moo tax ma tane ni <laughs> taaraka la imaam Haj Ibrahim kooruk tey jile faw nga fayaat ko médecin bi la seet waroon na laa laaj nañu ndogu waaye su weeru koor gi jàllee da <laughs> li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le ahlan bikum ay soxna jigéen yu wérut fa ñoo dem ci hôpital Louga ba ngir xam doom sage-femme ya kat ji leen dàq na kenn du leen rewele xanaa ngeen dem diwaanu Ndar ndax ñun fa ñuy geraw fa ñuy ñaawlu fa ñuy naqarlu suñ mbokk ñeenti sage-femme yoo xam ne fañ leen a jàpp tëj ca kaso ga ne yoo yaay fa ñoo càggante woon asu soxna ba mu faatu fii l'observateur moo ñu ko xamal les si ko yéene kaay dëggal xibaar bi ne sage-femme yi fa ñoo jël dogal ne maternité ba wàllu rewele xamam doom duñ liggéey sage-femme yéen tëj kaso ba tax sax ña ngay sàkku ci Abdoulaye Diouf Sarr jëwri juñ dénk wàllu wér-gu-yaram Macky Sall dàq ko kat ji football ca biti ndax lu ji njaaga mooy njaag enquête yéen a kaay ne xam ngeen lii lu garaaw la réewum Sénégal alxamisu tey ji jigéen ju bëgg a xam doom c'est bon nga seeti foo xaw de hôpital yi boo demee kenn du la faale dafa ñuy garaw ña ñuy duppee les internes ña ngay sàkku ci seen mbokk yi muy sage-femme yi ak waa hôpital yi luñ nekk nekk ci garaw fa ñoo war a def li ñuy wax service minimum maanaam faxe ba xam ñoo xam ne moom danañ liggéey docteur yi na leen faxe la ñun ba am ñu liggéey rek journée sans blouse moom la ñuy amal alxamisu tey bi yëre docteur yu weex yi kenn du ko professeur naan yaa ngi faj fañuy garaw ña ngi ko waxee ci bés bi yéene kaay wal fajir yéene kaay ne moo taxit Macky Sall ma ngay sàkku ñu defal ko rapport càmbaral ko hôpitalu Sénégal lan mooy jafe-jafe yi laas yéene kaay dëggal xibaar bi enquête yéene kaay ne xam nga tey sage-femme yi fa ñuy geraw waaye waa SAEMS si tamit geraw général la ñuy amal ba tey waa kër docteur yi la le quotidien yéene kaay ne si jamono jooju xam ne Sénégal yaa ngi feebar amuñu ku leen faj soxna yaa ngi bëgg a wasin gisuñ sage-femme yu leen rewele ndax ne neen yooyu yaay fa ñoo geraw ki nga xam Sall fa dajale mboolam ay responsable am ca pale ba invité leen ci ab ndugu ndugu weeru koor woo xam ne façon lekk bu nekkan fa lekk yu saf lekk yu neex te bari lu toll fukki waxtu ña ngay lekk te lekkee mënta jeex kon ñii fañ doon noos le quotidien na ko boole waale ci lijjanti wote député yi di ñëw ndax looloo tere nelaw makki ba mu jële kàddu xam nga lu mu leen wax yéen laay waxal fa ñoo war a nekk benn bàyyi leen xiiroo ŋaayoo bi su ko defee danañ am ndam bu fi nekkee di féewaloo fa ñuy néew doole de baax na te suñ ëllëg ci nguur gii ci wote yi la aaju maanaam buñ dof dofloo ba opposition bi mbuqi ñu ñun ñëppay fori new kàddoom yaa ngi ci libération Macky Sall ne maa leen di bëggal yéen samay responsable ne am na yeneen maire yu bokk ci opposition bi ku jégi danañ bàyyi ku jégi ñëw fekk suñu Barthélemy Diaz mel ni ku koy tontu na ko loolu du ci dara terewul sénégalais yi ñoom fa ñoo pare ci yow Macky Sall maire yooyu di ñëw di la fekk fañ leen di boole yéen ñëpp mbuqi leen ci wote député yi li ñuy wax cohabitation mu mënta ñàkk ci assemblée te wàllu sàcc élection yi moom di ko xalaat duñ ko nangu tudd fi xamee yàddoom yaa ngi ci l'observateur Dakar Times Sénégal ak yi la ñuy fexe ba sàcc ay élection moom mu te ñaareel élection yi bu jaaree yoon maanaam buñ ko sàccu rek ku jëgi fay mbuqi nguur gi info yéene kaay mel ni ku naan Macky Sall nag faa ko jàqal Ablaye Wade PDS jóg na taxaw ngir xamal doxub ñaxtu boo xam ne réew mi yëpp koy def ngir ñaawlu ni Macky Sall yore réew mi tooxi doona yi fii kumba am nday ak kumba amul nday gi xam ci réew mi fa ñoo bëgg mu takk ndax lu ëpp tuuru info yéene kaay ne hé yëf nar naa garaaw de te tàng ci Macky Sall ak ñim xàndal ndax Wade génn na ca tekk tekkaaralam ga enquête yéene kaay ne li tax mu oote doxu ñaxtu boobu bokk na ci fichier électoral bi mbind mi ci liste yi ba ci parrainage bi te mooy yéene kaay na PDS hubbi na yoonu jamono xare wa Ablaye Wade ak Macky Sall gañ daan ruumandaat naan jubóo nañoo Karim Wade dafay fekki Macky fi mu toll ni loolu moom jeex na tàkk kenn dootu ko fi waxati ndax Wade ngi tàngal di xoote ñaxtu ngir jëlee fi Macky bokk na te la ñuy ñaawlu tamit li mu yi nga xam ne fañ koo wàññi ci liste nationale ñu ne déete waay Ablaye Wade nee na Macky Sall fa tere lu ëpp benn million ndaw ñu bind ci liste yi ndax xam na ndaw yi moom waxuñ ci Macky Sall a ñàkkante ak moom yaw seetal Macky Sall joxut gëdd ndaw yi APR yi du leen jox ay poste wala mu leen di dooleel ay paa màgget xobi daas ña woon ci atum Blaise ñoo ko wër ndaw yi APR yi ne nag loolu fay dakk du dëgg du yoon ba ci wote député yi fa ñoo bëgg ñu def leen ci liste yi yéene kaay bi na Macky xam nga lan moo ko nar a yoon li ñuy wax vote sanction maanaam waa APR ya bokk ci parti Macky Sall ba fa ñuy woteel ku wala keneen romb fi Macky ci wote député yi di ñëw ko fekk si Abdoulaye Wade xam ne fa bëgg a dajale mboolem ku jégi ñu nekk benn ngir jëlee fi Macky ak nguuram gi 24 heures yéene kaay moom ma ngay artu Macky Sall attention defal ndànk am na yoo xam ne bu ko def ci réew mi li ñuy wax ay sàcc woteeg yooyu bu mu fi xam Ousmane Sonko tamit teg ko loxo yooyu moom bu ko mës a xalaat Macky ndax réew mi duñ ko nangu le mandat yéene kaay di ñu xamal ne Guy Marius Sagna Barthélémy Dias jël na ko ma ngay liggéey ca biir cabinet ba mairie bu Ndakaaru gannaaw bu ñu waxee ne moom it nguur gi fa ko dàqoon comme ni mu dàqee capitaine Touré ca gendarmerie nationale ñaar ñooru capitaine Touré ak Guy Marius a dàq askanu fat leen taxaw leen jox leen liggéey na leen du ngeen fi toroxee ndax yéen ñaar dëgg rek leen ñor te ay jànkat ngeen la mu bañ moom si du quotidien mooy saaga wante huññi wante sutura wax ju ñaaw yàq der gi xam ci réseaux sociaux yi Facebook ak TikTok ak yeneen yi ni mel yéen a kaay bi ne Sénégal moom fi mu ni fa ñoo yàqu ci réseaux sociaux yi te ay mbir garaaw rek moo fay xam Vox Populi feelu ko ne li ñuy wax vie privée fi mu toll ni kenn amatul bàmmeelu biir fa ñuy xam sa secret weer la ci réseaux sociaux yi xam na ñoo xam ne sax fa ñuy wax lu du dëgg lépp ngir yàq sa der ci réseaux sociaux yi loolu baaxut laneen lu baaxut mooy yëngatu ci wàllu wi ni mel tàggat yaram Boubacar kamara tànn na ngir football si Sénégal stade yéen kaay na loolu lu baax la de ndax booy boobu nekk Marseille Camara fa aay fa mën a football fa taqe ki taqe nag ba jéggi dayo mooy Sadio Mané fi mu toll nii record yéen a kaay nee na tolloon naa gigs ci ay dugal bi yu bëri journaliste yu bëri tubaab bi ne neen ren moom ballon door bi Sadio Mané ko war a jël li mu jël ci ay bii ci weer wi Edouard Mendy bëri na de léegi tey gars yi ray ko de fukki bii ak ñett ci ñeenti jongante record yéen a kaay ñu ko xamal néegu tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn soxna daal fa xam jëkkër di sëy ak moom lu yàgg ñu dem ba mu yàgg daal ndaw sa bëgg jël këru jëkkër ja moomal ko boppam mu xam ne loolu nag mënta nekk lu dul jëkkër ja fa dee ci la tooge nag moom soxna si di ñaan yàlla jëkkëram ji gaaw a dee mu ñaan ba sonn yàlla faale wut ko mu ne lee xaaral kon ma ko sama bopp ci la demee ut ab pikir pikir ko jëkkër ja mu def ñaari ay bés rek faatu l'observateur na ndaw sa nag teg nañ ko loxo yóbbu ko ci kanam tribunal ba ngir àtte ko waa ma ne ah xalalu àdduna nga rey sa jëkkër xam nga woy wu ñaaw dul fay ba àdduna tukki su ma doon yàlla faa laay bàyyi ba nga tëdd guddi ca kaw lal ba ma jël kër ga daane ko sa kaw su ko defee nga dee ba pare xay xeno la li ci eh, yéenekaay yi Choukran El Hadji Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal xibaar yi dig leen daje nag midi ci kàllaamay nasaraan ak soxna faatu si Cissé benn waxtu naa fi dikkaat yaatal ko ci kàllaamay ko ci baax ma jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi jaajëfal ko du sekk kenn mi ci wàllum xarale gi ak it waa rédaction ci jàppandal gi woy leen di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi bi rek biti tawfiq ak taysir jàngi jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine